Djidji ak Djilass waaw mbir na maa ngi lay bëgge de maa lay delloo bëgge mbaa yaa ngi ci jàmm nana mo leya séeréer nani ma wolof jijak ugagit xay final oxa xum mbegteje go ten non aja moƴu santa a yaaloxe rek santa a tenu yaaloxe a paax a paax wax deg fa yala i meke moom c'est la première fois ngara meke quoi c'est la première fois o soogu gara men première fois aussi o final oxa a kaga roogo fuun quoi axa mais bala i moƴa le njom ne and naye amateur ke a soxla an digante of nun fo boros i mbat culli ke wona cooɗka supporteur ke ndeɓenal wala den na cooɗka ndeɓena ten Ah, a jega wa andoona yee den na cooxka xam ndaa a jega wa andoona yee moom mi' na cooxka den xan o waasnoodka den xaq koy cunni ke layaa dene ɗambaasana mbaak rek i to a ɗeew ɓiideno inoox quoi iidam ɓexey a ndamtam o ndeɓudutuño refum ino tigoore ɗum waasin e ngir den i kon yaaga mi faranga no keke ga mbara mu ndamit i a ndamtanga mooma jeg mbir ndaa nqaƴangaam rek mbir bilay walay waaw i ngar combat ne amateur ke soxlana diggante nuun fo boros xar waago lay teen fo xar o yeɓalit kaa ah la supporter ke miɗen mbuud rek ɗe cikanam rawul boot aca po num num maafnu ino e ke fuun fogum i maafra quatre fois Ah ah. i tam maafama cafaɗa ka sutam jafleng in maafin jafleng aha xa ɓisnit kan xay e njom rek aha njom rek xa wule ka supporter ka ne sa nu inoxona ɗaan ke tan ka gat tigo résultat xaƴa waasno xa den xaq rek jegiim ndabid den bilaay walaay képp oxu na bega a jijak jilas rek mais am xaq kon ino ñaanana bonne ok waaw Babou Diaye waaw Babou Diaye You marqué nice ino gimomde waay gayroge Babou Diaye bala Inga, ngara jomne ande amateur ken namo an Inga, ngar ka i mbatna tabaski ke wona cootka den ndeɓenati wala den na cootka ndeɓenati den na cookaam quoi waaw fayine cooxa in rek a i den na cootka bolone non fada cooxa in i mbaƴanga rek i cooxa den insaaga leyo de waaw Babou Diaye xar wasloot ka den xa culli ke fo xa xeɗan ka den a xeɗana den jam dena fop rek waaw leya den de na in rogo yalla fokata sa immade nak kida kid dal waaw ku refna o maxo le faam noona rogo yalla yoɓal no ten waaw fop inchallahu rabbi marfe defat kaga nu mbi gestu fa noble malgré malgré nun fo njool sana aussi te ley fa le fa mosuto kene refa combat derby amateur ten nama ano aussi mais nu saca maga mbi solidarité babu xara waagu ley maga o ndik non content no ten rek billahi parce que ten moom a élève a élève a a afaga nga afaga quoi i ndefa nga ngel ne moom i mbi'in bete war nda i sutonga tamit rek mooy loolu i mbelan quoi ah. waaw ñaananon jam tamit ñaananon jam bilaay i nun mujji yaak nu mosa ngingo meg i mosa maafir a cafa pod num i maafra quatre fois nu maafir quatre fois o maafir a cafa tedak te maafom jaf lek xaru lek kan xay xay yebal ka parce que a laya xay ka soogu gara a nun fo ten non ngel le so a ah, ten fe soog na gara meen a ley ka final oxa koy ole wake yombe hana mavombe mine so mine so waaw mine fa sobo ah. ah yo kon wage yo inshallah babu jey in wanga supporter ke am bege am chaque jour a cunga résultat of xaro wago leya den xay kontaan na den moom dena fop billahi ñaana den jam dena fop billahi o leng jege ndabi den goy moom mooy loolu quoi ah. roga sikta den a paax billahi xar gidmit ka aussi a wene den na ndam tak saa ne koy parce que waga mbaga bege leñ fop me bege den ah. surtout ma we koy i wen moom i grand histoire refna maga Ablaye me ziare an Thiare in koy fop me ñoom mbalam aat ñoom fop fop me ziare a den a a paax waaw wa ah. kon ino xeɗana bonne chance ok merci beaucoup jaajëf waay you

Nice, huh? Hallelujah. nee naa leen amateur yi say nañ tey waaw lii lan la lii tey <laughs> way Fapes sey xoolal ma AC couloir bi moom daa primé doomu